والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين لق لساني واحللا منه العقد واجعله ذاكرا وشاكرا أبدا waj'al kalaami raashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa arshida mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen balu di ñaan suñu borom bi subhaanahu wa mu boole ñu jéggal ni ñu ko baaxoo ànd ak yeen ci ay bis bu jot di fàttalanteendoo ak yeen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiyallahu anhu mbindam mi nga xam ne lépp njariñ la loo xam ne mayis na ce jariñoo bu baax a baax a baax euh, ci képp koo xam ne yaa ngi koy bàyyi xel te di ko teqamtal kon ci mbindam moomu ci lañu nekk euh, di ci ànd ak yéen di ci nafarandoo ak yéen ñu nekkandoo woon ak yéen ci téereem bi nga xam ne mooy jazbatu sigaari an xidmatin an laibin li xidmatil muxtaari téere boobu ci lañu toll ak yéen ba suñu bind yi mujj ñu ngi woon ak yéen ci bunt bi nga xam ne moo ñuy moom lañu sëriñ bi radiyallahu anhu di jàngale naka lañu war a gëmee ñi nga xam ne ñooy malaaka yi alayhimu salaam mooy malaaka yi suñu borom bi subhaanahu wa taala ñoom naka lañ leen war a gëmee sëriñ bi leeral nañu ci bunt boobu malaaka yi ni ñu wuutee ak mbindeefi suñu borom yi ci anam gi nga xam ne noonu la leen suñu borom bi subhaanahu wa taala binde waaye itam mu xamal ñu malaaka yooyee ñi nga xam ne ñoom lañ ci war a gëm ci ak teqale ndax bari nañ lool waaye daf ci am ñoo xam ne sëriñ bi radiyallahu anhu daf leen lim ci bunt boobu wax ne ñooñu dañ leen a war a gëm ci teqale waaye bi mu ñu leeralee ñoo ñu war a gëm ci ak teqale itam ba pare dafa Euh, jël kenn ku ne ci ñooñu wazifa muy mission bi nga xam ne moom la ko suñu borom bi subhanahu wa sant mu war ko doxal mu leeral ñu ko ci bunt boobu nga xam ne ñi ngi tolloon ci suñu bind bi mujj ñaari malaaka yi nga xam ne ñoom ñooy bind lépp loo xam ne jaam bi def na ko ci jëf moo xam jëf ju yiw la moo xam jëfub safaan la mooy tombe ak bayit bi nga xam ne ci la sëriñ bi radiyallahu anhu bi wax ne wa yaktubu raqibu wal atidu jamia ma yafaluhu al mooy raqib malaaka mi nga xam ne mooy raqib ak atid ñoom ñaar ñooy malaaka yi nga xam ne ñooy nekk ci e, mbaggi doomu aadama bi di ànd ak moom fépp foo xam ne fa la jëm ngir lépp loo xam ne moom la def ñoom ñu koy man di bind moo xam jëf ju baax la moo xam jëfu safaan la bu dee jëf ju baax nag moom ki nga xam ne moo koy bind te moo di raqib moom saa bu doomu aadama bi jëfee jëf ju baax ca sensé rek daf koy daal di bind waaye ki nga xam ne mooy jëf jëfi mooy bind jëfi safaan yi nag moom bu doomu aadama bi jëfee dara daf koy neggandiku ba xam dana tuub wala du tuub bu tuubee mu bàyyi bañ koo bind waaye bu tuubut mu doog koo bind kon foofu lañu daane woon suñu kàddu sëriñ bi di continuer rek di wax ba tey ne wa munkarun maa nakiirin yatiyaan almayta baada mawtihi wa yasalaan nee na mi nga xam ne moo di munkar ak nakiir ñoom ñooy ñaari malaaka yi nga xam ne ñoom la suñu borom subhanahu wa taala di yebal ginnaaw bi nga xamee ne eh, nit ki eh, tàqalikoona ak ruuxam ba faatu Euh, ginnaaw bu faatoo ñaari malaaka yooyu la suñu borom subhanahu wa taala di yebal ñu ñëw ngir di ko laaj dina ñëw di ko laaj euh, kan mooy boroomam euh, kan moo di ab yonentam jan diina la gëmoon yooyu yëpp danañ ko ko laaj moom moom nga xam ne mooy aji faatu ji ak yeneen laaj yoo xam ne yëpp suñu borom subhanahu wa taala moo leen di digal ñu war ko laaj aji faatu ji te aji faatu ji itam war tontu kon ñoom ñaar ñooy ñaari malaaka yi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf leen di yebal ci néew bi ñu ñëw fekk ko fa nga xam ne fala la nekk euh, ngir euh, di ko laaj ci mbiri diineem moo tax mu ne wa munkarun maa nakiirin yatiyaan almayta ba'da mawtihi wa yasalan euh, munkar ak nakir de dinañu dikkal néew bi Euh, ginnaaw bi nga xamee ne faatu na ngir lan ngir di ko laaj lan lañ koy laaj mu ne an xaddi tawxiidin euh, ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu tawxiidaw sawaun uxbira way yemoo la ñu rob ko bandemtigenr ruuxi ca ginnaaw nocci ku ruuxam awlam yuxbira awlam yuxbara wala robeefu ko nee na ñaari malaaka yooyu nga xam ne ñooy laaj ci euh, aji faatu ji euh, bu ñu ñëwee ci li koy laaj mooy li jëm ci wàllu tawxiidam mooy lu aju ci euh, kan mooy sa boroom man rabbuka kan mooy sa boroom maa kitaabuka kan mooy sa téere ma diinuka lan mooy sa diine maa nabiyuka kan mooy sa yonent yooyu yëpp bokk na ci laaj yi nga xam ne dañ ko koy laaj laaj yi nga xam ne moom la ñuy laaj aji faatu ji nag euh, moom sëriñ bi wax ne euh, way yemoo la moo xam waay aji faatu ji bi mu faato suul nañ ko ginnaaw bi mu tàqali ko ak ruux ak ak ruuxam wala sax suuleefu ko ndax léeg-léeg nit faato noo xam ne deesul mën a jot ci moom ba koy suul su ko defee itam kooke itam ni ñuy laaje ki nga xam ne noonu lañ rob rek euh, kooku itam noonu lañ koy laaje kon laaj gi tekkiwul ne nit ki bu ko robul ci bàmmeel rek kenn du ko mën a laaj waaye fépp nit ki bu xasee tàqalikoo ak xam rek ak nu ko mën a mën a tàqalikoo ak ruux gi euh, bu boobaa itam def na ko mën a laaj moo xam ci bàmmeel lañ ko dugal moo xam euh, ci yeneen anam la faato moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu di ñu ko misaal ne misla akilati sibaa'i wal ghariq waka akilati tuyuri wal xariq li mu ne euh, ñu ropp ak ñu ñàkk koo ropp moo ci yam ñàkk gee ropp moom lay misaal ne comme koo xam ne euh, ci misaal ndeg ment daf koo lekkoon koo xam ne euh, ay rabi àll dañ koo songoon ba fàddu ko faat ko kooku mën nañ koo faat ci anam googu mu tàqali ko ak ruu ak ruuxam ba deefut gis dara ci aw yaramam wala sax mu doon koo xam ne dafa lab ci am ndox ba mënee su jot ba euh, rob ko ci biir suuf wala koo xam ne sax ay picc dañ koo lekk wala koo xam ne dafa lakk ba jeex tàkk ñooñu ñëpp dañuy faatu ci anam goo xam ne mënee su ta jot ci seen jëmm muy seenu yaram ba man koo rob ci biir suuf waaye loolu tekkiwul ne ñoo ñu mel noonu defu leen mën a laaj ah kay ñooñu ñëpp dinañ leen laaj moo tax sëriñ bi ne Euh, bu euh, roogi xasee nocc ko ci yaramu doomu aadama bi rek moo xam rob nan ko wala robuñu ko lu mu ci man di doon itam ñaari malaaka yooyu nga xam ne ñoom la suñu borom bi subhanahu wa taala euh, wakiil ngir ñu taxawee mission boobu ñoom danañ matale seen mission ba mu mat sëkk moo tax mu ne huma ñoom ñaari malaaka yooyu yaji aani danañu dikk maanaam fan la ñuy dikk dañuy dikk ci euh, néew bi nga xam ne rob nañ ko ci biir bàmmeel danañ ko fekk ci biir bàmmeelam woy julisaanihi ñu koy toogal fil ca biir bàmmeel ba in kaana ndeem nekk na maanaam ndeem néew ba nekk na fa os yi ñu koy laaj euh, nee ñaari malaaka yooyu dañuy dikkal néew bi toogal ko ci biir bàmmeelam su fekkee ne moom ku ñu rob ci biir bàmmeel ñoom dañuy ñëw toogal ko ci biir bàmmeelam su ko defee tàmbali nag di ko uh, laaj mu ne kay fiyatu suaali anaam gi nga xam ne noonu lañ koy laaje nag duuna lab si ci lu dul génn lëntal mooy an yur janga mooy ñu delloo ar ruuxu ruuga li jësmil insi ci yaramu doomu aadama bi mim baax di daf ni yii ca ginnaaw bañu ko uh, robee maan sirafin ànd ak wëlbatiku Euh, walbatikook ña nga xam ne ñoo ko doon rob ilaa du yurihim jëm ca seen kër ya bilaa xilaafin ci lu amul benn wuute nee na ni nga xam ne noonu la ñuy laaje aji faatu ji sëriñ bi radiyallahu anhu nee na dañuy delloo ak ruwaam ci aw yaramam ginnaaw boo xamee ne ñi nga xam ne ñoo koy rob si rob nañ ko ba wëlbatiku di dellu ca seeni kër sëriñ bi radiyallahu anhu nee na foofa ñaari malaaka yi di ñëw bu ñu ñëwee daal di koy Euh, yëkkati delloo euh, ñu delloo ruu gi ci jëmm ji su ko defee nag daal di koy euh, toogal jublu ci li nga xam ne moo leen fa tax a ñëw te mooy laaj ko ci li nga xam ne moo aju ci wàllu pas-pasam mu ne wal mayitu néew bi nag mim baadin siraafin ginnaaw wëlbatikoo ñi nga xam ne ñoo ko rob si woon yasmaaw day dégg xaraan alihim seen ceppet ceppeti dàll ya isama toqran ndeem ma ngay cëppat ki nga xam ne mooy néew bi ñi nga xam ne ñoo ñëwoon di ko rob si ginnaaw bu ñu ko robee bay walbatiku ngir delluwaat ci seeni kër bu ñu solee dàll yoo xam ne dàlli carax la nga xam ne booy dox euh, day am bruit bu muy def bruit boobee nga xam ne moom la dàll yi di def bu ñu ko robee bay wëlbatiku dem moom néew bi daf koy dégg kon ginnaaw boo xamee ne rob nañ ko ba euh, euh, ba ba ba di demaat day mel ni bu boobaa dañuy delloowaat ruu gi ci jëmmam su ko defee muy dundaat ci biir bàmmeel bi waaye nag bu boobaa moom dana dégg li nga xam ne ñooy euh, ñooy ñooy ñoo ko rob woon dellu gi ñuy delluwaat ci seen seeni yitte waaye moom fa nga xam ne fa nekk moom du fa mën a juge mukk ba wax nañ ne foofa euh, tur wu mu xamoon man na ko yooxu ngir sàkku ndimmal waaye bu boobaa foofa moom euh, benn ndimmal mënu faa am lu dul ndimmalal suñu borom bi subhanahu wa taala te yal nañu ko suñu borom subhanahu wa la defal mu ne sawtaahuma seen ñaari kàddu yi ñoom malaaka yooyu ñaari malaaka yi nga xam ne mooy munkar ak nakiir te ñoom ñooy ñëw di laaj ci euh, néew bi nee na ka dafa mel ni ak dënnu xaasifin guy aji xaaj aynaahuma seen ñaari bët ñoom ñaar ka misli barqin dafa mel ni ak melxat xaatifin guy aji xotti yaxruju dana génne min may hima ci seen ñaari gémmeñ ñoom ñaar maaka sarari lu lu mel ni ay ferñeent inda muxaatabati masulil basari faf waxanteeg mbindeef li nee na ñaari malaaka yooyu nga xam ne ñoom la wax day nee na ñaari malaaka lan yoo xam ne ñu raglu lan ndax seen kàddu ya nga xam ne moom la leen suñu borom subhaanahu wa taala defal rek bu ñu waxee day mel ni yëngu gu noonu lay seen kàddu ga di mel waaye seen ñaari bët yi bu ñu lay xool nena day mel ni ñaari day mel ni ak melax goo xam ne melxati ngir leeraayu bët yi waaye itam euh, la nga xam ne mooy génn ci seen bët ya nee na day mel ni ay fer seen seen gémmiñ bu fekkee ne ñi ngi waxante ak euh, euh, ñi ngi waxante ak néew bi euh, nee na day mel ni ay ferñeent maanaam sawara bu bu tàkkee ferñeent yi nga xam ne moo ci génn nee na bu ñuy wax nit ki day mel ni ferñeent yu mel noonu moom mooy jóge ci bi euh, ci ci seen gémmiñ gi kon lépp loo xam ne luy tax nit ki euh, raglu rek moom mi ngi ci seen jëmm yi ñoom malaaka yooyu moo tax mu ne seen ñaari kàddu yi dafa mel ni ak dënn goo xam ne day xàcc waaye dafa seen ñaari bët yi dafa day leer bi melxati ba mel ni ak melax waaye seen ñaari euh, gémmiñ yi li nga xam ne moo ciy génne buy bu ñuy wàqante ak doomu aadama bi day mel ni ay ferñeent mu ne laa yushbihaani ñoom ñaari malaaka yooyu nuruwuñu al jinna jinne laa déedéet walal malaka du caage ne malaaka maa siddatil dayx euh, ànd taruk xat-xat euh, ya wa siddatil xalaki ak tarug lëndëm ga nee na ñaari malaaka yooyu day noonu nga xam ne noonu lañu ragloo day xamal ne nuruwuñu jinne waaye nuruwuñu malaaka suñu borom da leen a bind ñu di ay malaaka waaye nuruwuñ lenn loo xam ne moom la suñu borom bi bind ci luy nuru jinne waaye itam malaaka yi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala bind itam nuroowuñ ci ak dara ànd ak tiitaange gi ngay àndal foofu àndak ak taruk uh, xatuk bàmmeel bi nga xam ne uh, ci nga nekk waaye àndak ak taruk lëndamaay gi nga xam ne uh, foofa nga nekk ci biir bàmmeel bi moo tax mu ne wa kullu xalqin bépp mbindeef nag xaaifun aji ragal la min ni ci ñaar ñii muy ñaari malaaka yi di munkar ak nakiir xattal malaaikati nda ba ci malaaka yi sax duuna may ni ci lu amul benn nar nee na malaaka yooyu dey Euh, maanaam dañoo raglu ba euh, képp koo xam ne mbindeef nga képp kuy doomu aadama rek di mbindeefal suñu borom subhanahu wa taala ragal nga ñaari malaaka yooyu nee na ba ci malaaka yi nga xam ne ñoo bokkut ak ñoom sax dañ leen a ragal dañ leen a ragal ngir seen euh, xëyba gi nga xam ne moom lañ amee ak ni leen suñu borom subhanahu wa taala bind kon ñoom ñaari malaaka yooyu mbindeefi suñu borom subhanahu wa taala yépp leen di bàyyi xel ndax ragal leen ngir ni leen suñu borom bi subhanahu wa taala binde mu ne wa kullu xalqin euh, bépp mbindeef yastaizu day muslu minhuma ci ñoom ñaar wa minhuma te ci ñoom ñaar rek aazana yàlla nañu musal rabbu sama borom asamaan nee na képp koo xam ne mbindeefal suñu borom subhanahu wa taala nga day da ngay muslu ci ñaari malaaka yooyu mooy munkar ak nakiir waaye itam ci ñoom ñaar ñu ngi ñaan suñu borom bi subhaana taala mu musal ñu ci ñoom ñaar ba ker boo xamee ne dem nañ ba war a taxaw eh, ngir jëmmal seen liggéey boobu nga xam ne moom la leen suñu borom subhaana wa taala sant ñu eh, mën a taxaw man leen a tontu ca la nga xam ne la ñuy laaj te genn tiitaange wala genn ragal duñu dugg kon ñaari malaaka ñu raglu ñoo xam ne malaaka yi seen jëmmi bopp dañ leen a ragal moo tax nit ñëpp dañuy muslu ci ñoom waaye lépp loo xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala bind itam day muslu ci ñaari malaaka yooyu nga xam ne ñooy munkar ak nakir kon ñu xam ne euh, laaj ci biir bàmmeel moom luy am lay doon te suñu borom subhanahu wa itam euh, dogal lu suñu borom subhanahu wa taala dogal ci jaam bi lay doon waaye itam laaj gi euh, ajuwul ci nit ki ñu rob ko rek waaye rob gi ak ñàkk rob gi yëpp euh, du tee euh, laaj gi moom dana am te it ñaari malaaka yooyu ñoo koy def te it ñu raglu lan ay mbindee fi suñu borom subhanahu wa ñu raglu lan waaye itam euh, ñu jara bàyyi xel lan ba tax na doomu aadama bi fu mu toll war na leen di bàyyi xel di ñaan suñu borom subhanahu wa taala musal leen ci ñaar ñooñu nga xam ne mooy ñaari malaaka yooyu waaye itam di jëf-jëf joo xam ne bo ëllëgee ñaar ñooñu bu ko dikkalee euh, dana euh, am ak daluk mën a toog ba mën leen a tontu ca euh, laaj yi nga xam ne moom lañ koy laaj kon ñoo ngi tuub bu baax te jégglu di wàcc foofu kàddu gi di wax ne in uridu illa al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu